asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah. waa àddina sax la ñuy wax parce que ñi seetaan bëri na ñu ngi leen di nuyu ak fu ngeen ñu mën a seetaane rek di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen fii ñu toog nag xam ngeen ko mooy fi nga xam ne nii mooy buntu arène nationale buñ ko waxee nag suñu xel day dem ci làmb tey nag jataay bi comme ni ma ko waxee léegi rek benn affaire moo am làmb waaye balaa may dem ci làmb ji tamit dafa am loo xam dañ koy waxal rek di jaalewaat sénégalais yi ñi nga xam ne ni dañoo duggoon ci gaal yi di dem Espagne ñenn ñi yegg ñenn ñi yàlla jël seen bakkan ñi ci faatu yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi yegg tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla la tax ñu bàyyi fii ba dem yàlla nañ fa gis lu kawe seen njort barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais daal xam naa ne du ñu encouragé benn xale muy dugg gaal déedéet amul lu ko jar pour man waaye nag waaw am na loo xam ne daal boo boo ci nekkee ba dem ba sës des fois mu lay dugal ci yenn yi kon foofu dañuy waxaat état du Sénégal rek mu gën a veillé ci liggéeyu ndaw yi fexe nit ñi am liggéey wala boog mu accompagner leen ci la ñuy yëngutu moo xam jaaykatu caaf ba menuisier ba soudeur ba ak mécanicien ba ku ci ne métier ba mu nekk nga fekk ko ca dimbali ko ci te yàlla tax pour que jeunes yi mën a toog fii liggéey ndax nag moo gën ñuy dee ci géej gi loolu dara du ko jar.